arbitre baa ngi noonu sifflé na trompeur féetee seen ndijoor Wouly 2 féetee seen càmmoñ ba ngay lay doon. combat bu lay doon ndax ñoom ñaar ñëpp càmmañ la ñu jiite kon ku ñëw dina ñëw pour xeex waaye ki nga xam ne mooy Wouly 2 gëdd na trompeur trompeur arrière ñuy lewtoo lewtoo bu diib korben jubagul song amagul laale amagul nooji amagul dara amagul buur. trompeur da koy tul wuli daw na jaw yeeg moom da koy trompé wala wuli da koy wuli. ah loolu ci kanam leeruñu waaye combat bu gaaw lay doon. combat bu wuli daa daw xeex bi daw jàpp ko ki nga xam ne moom mooy trompeur jàppul fenn moo tax mi ngi jënd loxo bi pour du wala hypercule pour bu lu bàyyi waaye wuli yaakaar naa ne li muy li muy tante mooy plaqué te yaakaar naa ne loolu fooru ki nga xam ne mooy trompeur la. wuli dafa jàpp ba noppi xañ trompeur. Fallou Ndiaye production Ndiaye production ah moom itamit di xale boo xam ne damay ni c'est le promoteur des amateurs ndax moom d'habitude combat buy moon ah ñu ngi na kat ab am na. Ah, wuli daan na garab daan na ko. jekkali wuli daan na trompeur. wuli daan na trompeur. waay trompé trompé ko waay. trompeur trompé nañu ko. waay trompeur trompé nañu ko. ah ko trompé ko wóorul. oh trompeur li ko dal metti na. trompeur ñàkk na.